xam nga euh, il y a eu tout un débat en 2019 2020 sur euh, euh, l'augmentation une supposée augmentation du nombre de de de, de bateaux étrangers autorisés à intervenir euh, dans nos dans nos eaux le gouvernement euh, communiqué na euh, à l'époque et le gouvernement rappelé comme ni nga ko waxee euh, li ñu accordé ci ay contrat wàññi nañu ko sax par rapport ak yeneen régime yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon mais dafa am beneen euh, forme euh, benn beneen mbir bu ci am mooy ne mooy li ñuy woowee les sociétés de de pêche mixte Sénégal dafa teg loi mu ne maintenant pour nga teg une société de pêche mixte il faut que 51 pour cent du capital soit détenu par des par des sénégalais. Mhm. mu mel ni effort yi nga xam ne defoon ngeen ko dans les licences dans de de de de pêche mu am des sénégalais yoo xam ne dañuy ñëw nekk écran ah ñu taxawal yëpp boole yéen boo leen xoolee lépp day normal mais en réalité ce sont des sociétés de pêche étrangères ñoom ñooy ñoom ñooy nekk ci ci ci ci ginnaaw alors yan éclairage nga mën a indi sur ce nouveau détournement. des des des licences de de de pêche phénomène bu bees boobu. déjà madame quand je suis arrivé j'ai trouvé cent cinquante huit licences étrangères ak sénégalaises aujourd'hui à l'heure où je vous parle sommes à cent soixante trois. waaw donc cent quarante pour des navires battant pavillon sénégalais et pour l'Union européenne uniquement. Sur cent quarante je parle de mémoire, hein, nous avons ce qu'on appelle, am na ci li ñuy wax naan pélagique côtière am na ci pélagique profonde am ci euh, euh, pélagique hauturière ak am na démersio profonde ak démersio côtière boo xoolee les démersio côtière démétiaux yooyu en poisson et en céphalopode 44 lañ bu dee les la grosse crevette ils sont 24 elles sont 24 licences. Mm-hmm. bu dee les démétiaux profondes pour le poisson il y en pour la crevette blanche. Mm-hmm. il y pour les pélagiques côtières il y pour les pélagiques pélagiques hauturières seize qui sont des seineurs quatre qui sont des canneurs et les trois qui restent sur les vingt accordés à l'Union européenne ce sont les merlus qui sont des démer qui des démerciaux profonds donc am na ci benn euh, désinformation boo xam ne bi accès nañ ko. aujourd'hui pour inculquer ko inculquer ko dans la tête de Sénégalais du ma ni amul à cent pour cent parce que œuvre de Dieu rek moo moo moo parfaite mais li ci ëpp désinformation la pourquoi parce que dans ce secteur de la pêche industrielle dafa am ñoo xam ne ñii am nañu 35 ans d'existence sur ces 35 ans d'existence képp koo xam ne kii ñëw nga pour dugg ci seen wujj ngay doon bénéficier na ne de tous les avantages yu mu sa am dont un arrêté qui a été signé par un de mes prédécesseurs dont je ne citerai pas le nom ki leen benn tay benn part du lion parmi ces sociétés là mais yana ñoo xam ne ñoo ci vingt 22 licences man fi laa ko fekk de. vingt deux licences ci benn société. et vous trouvez ça normal. déggoo man la benn liste déggoo man la loolu laa fa fekk et ces sociétés sont là depuis 35 ans laa la wax il y a 35 ans Macky Sall n'était pas président de la République ces sociétés yooyu am nañu kenn ci ñoom ku am 22 18 licences de démerciaux et 4 licences euh, de thon ñooñu tey jii. boo buñ nee am na ku bëgg a ñëw dugg pour la licence parce que may mun a ah, am nga liberté entreprendre man dama ni man damay importer ceeb kii ni man damay jaay fruit kii ni man architecte la may mun a ni man dama bëgg a def pêche dama bëgg a def pêche wuti ay partenaire am ñëw bind ni monsieur le ministre dama bëgg nga accordel ma licence de pêche amul benn texte bu permettre benn ministre des pêches dans le secret et les quatre murs de son bureau mun na oui wala non code de la pêche mayu ko ko y a un passage obligé ce passage obligé mooy passé par la commission cette commission la elle est composée par le les représentants en empêchent du président de la République celui du premier ministre les représentants du ministre astaf du ministre des forces armées représentant ministre économie et finance am na ci la représentation de la pêche artisanale et la représentation de la pêche euh, nu mu tuuti euh, industrielle plus le conseil juridique du ministre mais mais mais de la pêche maritime justement nébuleuse boobu laa lay wax xam nga état du Sénégal dafa dafa nourrir dafa dafa nourrir dafa nourrir ay monstres non bu ko tudd bu ko tuddee ay nébuleuse pour la bonne et simple raison même mooy égal yi le processus bi ma lay expliquer allez-y aujourd'hui nee naa la benn ministre code bi mayu ko moom ci boppam mu tëju ni jox naa la wala maa bañ da koy déposer au niveau de la commission cette commission consultative am na koo xam ne kii mooy éclairer seen lanterne c' le CRON c' le centre de recherche océanographique de Thiaroye ñooñu ñuy ñëw ni jën bii nga laaj catégorie bii cette espèce est menacée kon notre avis ak leen di conseil mooy non mais aujourd'hui le tollé qu'il y a imaginez-vous Maïmouna a demandé je suis obligé pour dire à may Maïmouna si oui ou non que de passer par cette commission avant que cette commission ne se réunisse la veille les documents qu'on a envoyés aux membres de la commission la ñu distribuer au niveau des réseaux sociaux pour ñu joxe nañu ay licences alors que la commission ne s'est pas encore réunie. mais ce type de désinformation Maïmouna. ñan ñooy ñan ñooy porter euh, désinformation boobu. ñan ñoo ci am intérêt. mais ñi ci am intérêt mooy ñi bañ a am wujju.